jërëjëf euh, mbokk yi di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne di jàkkaarloo ak yéen fii ci Sénégal Buzz 221 ni ñu koy defee ak yéen di dalal ay ndaanaan waaye ma toog ak suma frère yaakaar naa ne sénégalais yi dootuñu leen ko présenté ñu yàgg am ak moom li nga xamante ni moo di jotaay le frère délégué Amar la ñu toogaat ak moom nu ñu koy defee fas yéene déwénati ko baalu ko àq ci li nga xamante ni moo di tabaski bi xam naa duñu wëyal suñu ay kàddu dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi le frère maa ngi siyaar bu baax a baax di la bëggee. mais maa ngi delloo siyaar Diorin. Mm-hmm. Ah, di la jox sa wàccuwaay di la baalu àq te di la baal di jiital ci nuyoo bi at siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko te mu wér. Mm-hmm. naa li mu am at yéene ji mu am ci yoonu Seexul Xaddim mu matale ko ànd ko taalibe yi di ko ñaan ci këru tarixe diine yëpp di ñaan yàlla sunu borom defal leen jàmm defal leen tawféex. ba yéen ji ñu am ci yoonu maam yi ñu matale ko. di mhm. nuyu di nuyu ñëpp tey baalu àq ñëpp te di leen siyaare. Mhm. jërëjëf. naka julli gi. Euh, sant ko tedd gi. Mhm. def nañ ko ci jàmm. waaw jeexal nañ ko ci jàmm. benn bis la rek ay minutes la yàggul. waaw benn bis la ay minutes yàggul. waaw yàggul boo gisee nit ñi di ko jël aj ko ci kaw mu jaral leen lu ne noo koy gisee. waaw xam nga Sénégal la bëgg programme rek xam nga jigéenu réew moom programme la def seen xol bi te amuñu ñoom lu tabaski moo tax bu ñëwee rek dañ ci profité lépp lu ñu mën def ko. Hmm. sant yàlla rek. sant yàlla sant yàlla rek. Eh, ci noonu aussi bëgg nañu waxtaan démb gis nañ ñi nga xamante ni noonu la ko sénégalais yëpp eh, amee yërmande ci julli ki nga xamante ni julli na ko eh, mu yàgg ko fekkee ak waajuram tey yàlla suñu borom jëlee ko fi ak yeneen i waajur yi nga xamante ni dem nañ bi ngeen gisantee démb nga daan ko gis. tabaski waajuram bu jigéen jaaga daan taxaw ci wetam muy sa frère Waly manquement bi démb nag ngeen ko dundee ak moom. waaw amee sant yàlla ndax yàlla moom lu mu def rek ci am na lu tax mu def ko ñun ñii ñëpp dëkkuñu fi ñëppay dem. Mhm. kii fekkee di benn yàlla rek xam. non du man du kii du kii laa rek xam ah. Mhm. donc ngi sant yàlla bu baax ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu ak wér ñi képp ku yàlla may ak wér. nga fekkee ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm ñu ngi lay ñaan déwén tamit nga fekkee ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm mm-hmm. ndax yàlla moom li mu bind bind na ko ba pare moo ni woon tabaski ren gi du fi fekk Mama Diaga mm-hmm. donc tamit euh, gis ngeen ko ni mu demee daa mel ni bu daawul la ko doon ñaanal naan joxe nga 13 millions nangama nangama nangama mm-hmm. dafa mel ne ren nag waali moom ca la ko Mama Diaga ñaanaloon noonu ren da cee gën a raakaajo ndax dem naa ba keroog ma ni papa Thion lu tax mu tuddee waale Ibrahima bisub tabaski taxoon ndax waale damay gis maa ngi doog a àndaat moom ci tabaski muy jënd ay xar di ko joxe mais dama dem ba jàpp ni kii nag moom dañ ko pikir pikiru joxe dara dara ñu taxaw keroog bëri na te xar yam fa doon jënd ay nit dong la ko doon jox ñoo xam ne mën naa wax ne waale xamu leen. Mhm. te xar ya ci gën a ndaw yi may jënd trois cent mille la te du waxaale loolu nit ku koy def rek am nga cër ci sunu borom. am nga mhm. ndimbal ci sunu borom te soxor rafet na. Mhm. da ngay gis jaaykatu xar yi su demee benn daral taxaw fa waal di jënd xar yi ba xar yu mag yi jeex mu mu rus jënd xar yu ndaw yi dem beneen daral te xar yi ku ñëw pël bi waa ji jaay xar yi day ñëw ne ko bii 300 laa koy jaay bii 400 bii 600 bii nangam mu ne ko tegal ne du waxaale. Mm-hmm. ba jël ne diw demal nga jël demal nga jël demal nga jël ba xar yi jeex loolu nag gisuma ko ko fi def ci réew mi ku dul moom. waal du waxaale. gisuma mu waxaale de. barki démb Sénégal yëpp gis président de la république taxaw waxaale. xaru man gisuma mu waxaale benn yoon xar yi. loolu kay amul lu ma ciy dellu gannaaw. te boo indee kaamil ma waat ko man mujj gi maa ne ko waa jëriñ doo waxaale xar yi man man Modou jaru hmm? mais loolu day wane ne que yéene na ñiy jaay wërsëgam yéene na tamit ñi nga xam ne amuñu xar ma bëgg leen dimbali. bu waxaale woon dama naan leen daa waxaale carrément ba jubóo man mujj gi maa ne ko waa Diourine xar yi doo ko waxaale mu ni mënoo jëru ko barke Serigne Saliou Mbacke mi yaakaar plus de cinq daral yoo xam ne jënd nañ fa ay quinze xara ki fukki xarat lu nekk jënd na ko fa. day ba jënd ba ba xool dara gi mu des ay xar yu ndaw mu koo jënd di ko jox nit ñi te li may wax nii bu dee dugg yàlla bu ma fekkee déwén. yëg-yëg bi buy joxe yow nekk ci wetam naka ngeen koy gisee. waaw mais dañuy dañuy dañuy sant yàlla rek. nag ngeen koy gisee moom mi nga xamante ne mu ngi joxe nan lay mel moment boobu. waaw buy joxe nag day mel ni ku nekk ci àll bu fekkee ne li may wax du dëgg waa Wakaam osan bu yow osan bu Wakaam ba ñett toogoon ci rond-point bi di jaay xar. Mhm. buñ dégloo lii nañ génn wax ne du dëgg. Hmm. at rond-point Ngor at feneen feneen feneen te da li may wax dara du ko dindi. ndax maa nga fa te ma xar yu bëri maa ko doon yóbbu di ko joxe donc yëg-yëgu joxe googu daal. Mhm. ak pikiru joxe googu suñu borom def na ko ci moom man nag yàlla na ma ko wàll. Mhm. yàlla na ma ko wàll. Mhm. keroog nag laay doog a wax ne ma ne kon kii lu tax li def li def euh, ci Papa xel mu tax mu tuddee ko Ibrahima kon bis bu mel nii taxoon. wane na ne moom Ibrahima la tudd moo waral bis bi. Mhm. waaw jëf na ci lu am solo. waaw wax yàlla la ko pa la maman Diago doon wax naan ko mënoo ko xaw ma lan la keroog de def na loo xam ne moom simil naa ko sàpp ci loolu moom. macha allah waaw. macha allah tabaski simil naa ko ci tabaski gi mooy borom tabaski de. waaw mooy borom de. mooy borom tabaski. waaw macha ñu koy ñaanal yal yàlla mu yokk li nga xamante ni moo di. am na koo xam ne moto la yoroon dafa romb rek. ne ko waale nangam nangam mu ko eh diw kaay jëlal ñaari xar jël benn jox kee benn xaw ma kan. am na ku ko batale daal. ndeysaan kooku ku ko waxoon ne bu ku ko waxoon ne dina am foofu xaru tabaski diw eh demal jëlal foofu benn joxal mu diw benn. te ku ko hmm. doon romb dem de. ndeysaan. barke Sëñ kon yàlla na ko ci yàlla defal jàmm ba déwén. Hmm. mu dem jënd ay camion xar. di ko joxe dëkk bu ne mu yóbbu fa benn camion yàlla na ko yàlla defal xéewal googu ba mu am ko. macha allah waaw yàlla na ko yàlla defal muy lu am solo waaye ñu gis euh, li nga xamante ne moo di spécial euh, tabaski bi nga xamante ni joué na ko démb fële ca RTS. Mhm. mu doon ambiance bu neex boo xamante ni daal ah Sénégal yëpp kontaan na ci nag ngeen gisee événement. mais sant yàlla. Mhm. ndax kenn ku ci nekk boo sa sañoon muy sa ndey wala sa baay di am am waali sa kër. Hmm. <laughs> Ah. donc ñu ngi sant yàlla ci RTS. def gi mu ko def ambassadeur. waaw ah, loolu bëggoon naa ci ñëw dinaa ci ñëw après dinañ dinañ ci ñëw ah. Mhm, ñu ngi sant yàlla ci événement bi mu tëgg démb ca RTS toj ko nag. Mhm. rombux. waaw ah, toj nañ ko. def la ñu daan def wala ñu def lu ko raw. biir RTS. Mhm. ndax ku ne xam na ne RTS moon na événement bu mel noonu. RTS. namoon na événement bu mel noonu ndax ku ne xam na ne événement bu toll noonu RTS gëj ñu ko organiser donc delloosiwaat na RTS. indiwaat na RTS ci xolu nit ñi indiwaat na RTS ci àdduna bi ba tax nit ñi léegi dinañ bàyyi xel RTS ñu xam ne RTS bi fi nekkoon 2012 ak 2024 dina wutee xam nga ñun joxoon RTS dañ daan sàcc rek. Euh. bu ñu waree tëgg waale jël xaalis ba lekk ko. Euh. bu ñu waree tëgg beneen artiste Pape Diouf wala ñu war a tëgg keneen ak keneen jël xaalis ba lekk ko moo tax nit ñi dem ba tàyyeel duutuñu teesaan RTS. donc bu paapale Alé Niang ñëwee organiser lu mel noonu ubbee ko. Mm. ay liggéeyam kon bëgg na RTS avancement am ci. bëgg na jaay tamit drapeau RTS. Mm. te drapeau RTS ku ko bëgg jaay te jaaroo ci waali munoo koo jaay. Euh, ci ay kàddoom mu wax ko ne kenn mënta liggéey te àndoo ki nga xamante ne mooy jëmmam jooju ci waali. mënul nekk sa impossible. mënul nekk. mënta ne fii ci réew mi. déedéet nga bëgg maanaam bëgg jaay sa image li ngay def. waaw te àndoo ceen moom. Mm. jàppal ne du dem. bayra bi mu bayra bayra moom bayra gaa yi gis gaa yi dem ci sëriñ naan bayra bayra bi gën a gaaw mooy jëmmi waale ci hmm. bu la wayee dimanche lundi nga tàkk bu la wayee samedi dimanche nga tàkk sëriñ si ngay dem di wuti bayra xamuñu dara dañuy fen bayra bu baax bi waalee ko yor. <laughs> nga ni la. sëriñ si ngay dem di wuti bayra yooyu xamuñu dara dañuy fen bayra bu baax bi waalee ko yor. fu mu jëlee bayra moom waali. parce que moo ko yor waale bu ma bu la wayoon nii nii yow tey tey tey ci soirée foofu suba moom jàppale sa koñ doo fa xaj. eh sa waay kii la waal doon way eh nangam. kon noonu nga dund yàllaa ko def ci moom. bi mu la woyee noonu nga ko dundee. no déggu li ma la wax. mbayra bu gaaw bi moom moo ko yor. bul demati ci ay naan da ngay sangotoot yooyu di ko fay sa xaalis <laughs> ñëwal ci waali mu way la nga am bayre non waali bayre la man waaye mënul ay muslaa ak yooyu noon moom non loolu moom yow sax war nga ko mën a sa bopp ndax jàng nga alxuraan <laughs> alxuraan moom boo ko jàngee war ngay mën a bind ay dëgg la mbóot di ko sangoo. di ko sangoo waaye ci kaw euh, kàddu yooyu noonu ginnaaw ba Pape Alé nu ñu ko waxee def ko ambassadeur. waaw euh, biir RTS pour ñu ànd liggéey ci kàddu yooyu nag ak euh, jëf jooju nga xamante ne jëf na ko ci jëmmam jooju moom Wally Seck dafa jur nag ay polémique ci ñi bëri ñoo xamante ni dañuy woowee seen bopp patriote ba am kenn ku ci génn fësal boppam di Azura di naqarlu mbir mi ni. xam nga ñooñu duñ ay patriote ay sàcc lañ. ñan ñooy sàcc. ñooñu ngay tudd ñëpp duñu ay patriote patriote day no noobul la patriote day gëm boppam. patriote mooy ñi nga xam ne heure bu nu xëyee ñi ngi xool lu avancé loo suñu état bi at loo xamante ne ku tu ay détails te nekkuñu ci te ña ngi koy doxal il faut ngeen bañ a jaawale koo xam ne dafa nekkoon Kaolack ci euh, lu ñu koy waxatee euh, nu ñuy waxatee waaye Serigne Mbuub hmm. di sàcc Serigne Mbuub Eh. ba gars yi jàpp ko dóor ko ba tànk yi moo tax muy yaaba noonu tànk yi baaxut xam nga moom tànk yi baaxut wax ko lan la doon def ci sëriñ buub ci sëriñ buub la njëkke de moom njëkkewul ci Sonko de ci sëriñ buub la njëkke tekkiwul dara mu koy neex mu koy naqari muy neex ndayam di neex baayam force ñooy ambassadeur u RTS force ñun Wally Seck mooy ambassadeur u muy neex ndeyam moom waa jooju di neex baayam moom waa jooju xoolal na dem wuti liggéey moo gën muy xëy di toog di di fen di dajale. amul mais nit ku nekk tamit délégué. am na droit nit def dara nga gis ni. lii xam lan la a bàyyi xam lan la ñu war a bàyyi. Ah. bu ñu jugee naan xeex bi ñoom lan lañ xeex. lu dul yàqal Ousmane Sonko ñii xeex dëgg duñ ko Moussa wax dañoo toog fi ñu toog jàpp seen seen seen seen seen seen dignité ñii dëgg dëgg xanaa xamoo ne jafe-jafe yi Ousmane Sonko doon am ci lu ci bëri ci moom la doon jóge da doon jëlee ay information ci Ousmane Sonko ñu koy fay ay 1 million muy joxe information ci état Macky Sall bi bu mu ñu tax wax nag. dëgg li ngay wax nii. non déglu rek Azura li mu dund ci nguuru Macky Sall. lijjanti turam sax mënu ma ko wax ndax xaw ma ko lijjanti ko ma considéré wu ma ko nit ab bàyyi ma laa ko considéré man. wu ma ko nit bàyyi ma ko considéré moom ci boppam. waaye léegi moom nee na am na preuve boo xam ne gis na gis na. Euh, Amadou Ba di jox Waly Seck xaalis loolu moom mooy ki ciy indi leeral incha allah loolu moom mooy ki ciy indi leeral Waly lu ko porte plainte de man maa koy porte plainte ànd ay avocat Waly jébbal ko yoon moom dina indi leeral fan la gisee amadu Ba di yëkkati xaalis di ko fay Waly pour mu pour mu jàppale ko dina ci indi ay leeral xam nga du wax na ko. Hmm. as bi mu gisoon bi Amadou Ba dem di jaali jeeg yooyu noonu peut-être mbir mi am xaw kaa neex. waaw nit moom bu la dara neexul mën nga wax sax te doo xalaat wala. sa non xam nga tey jii. Hmm. moom mën naa wax ne Kaolack xaaral bët bi day xasan ah mënoo hmm. nekk Kaolack googu di di dóor waa kawlax naan dangay këpp ay mbalitat da ngay set dëkk beet di dem di di jël xaalisu homme politique yi nekk foofu di leen fen ah? Euh, sëriñ boobu xam ne li may wax du ma bàyyi ma fen waa ji da ko fa doon nax di ko dóor xaalis wextaan di ko fen di ko wax lu dëgg ba sëriñ boobu dàq ko mu ñëw langal ko Ousmane Sonko naan day yor ay drapeau gëmuñu sax Ousmane Sonko Ousmane Sonko boo ko gëmee ba yàlla def ñun ñi nga xam ne ñoo ko xeexal ci suñu suñu ci suñu porteur de voix bi ñu doon moom da ko mos a gis muy def communiqué ci porteur de voix di jàppale Ousmane Sonko la la doon def di yor ay drapeau di fen di dajale rek ñoom bu leen Ousmane Sonko yaakaaroon rek réew mi jomaay du ko jël xam nga loolu. dañu bàyyi lu ñu jóg ñu defee na ñoom ñoo moom réew mi. gis nga euh, euh, ni ñu koy waxatee euh, Pastef moomul Sénégal ah Pastef parti la comme yeneen parti yi dafa ñëw wan ñu projet bu ñu doy ñu xeexal ko jàppale ko vooteel ko mu toog. te ba ki nga xam ne moom lañ votel muy Bassirou Diomaye fay ba mu toogee bokkutut Pastef am na wala amul. Mhm. kon bu ñun ñu fontoo ñun moo gis nga Pastef moomu ñu réew mi Pastef parti politique la rek man mi Pastef laa bokk ndax sama carte bi mu jotee ñoom laa votel xeex bi mu jotee Ousmane Sonko laa xeexal. kon nañu bàyyi mbaam àll yi nga xam ne tekkiwuñ dara bu nu jógee toog seen kër yi di fen ak dajale naan dañuy def ay live lu xew ci réew bi ñu naan dañ ciy jéem a wax lu négatif wala lu kii ak kii te kat kaay ma wax la nit ñi buñ commencé di bañ Ousmane Sonko moom ci moom lay jógee ah. parce que day génn wax ay konereem lu ko neex mu wax ko boo xëyee dem di wëri Ousmane Sonko fan la nekk ñun xam nañ lépp ni mu demee. Mm-hmm. xam nañ lépp ni mu demee. bu mu ñu fontoo fii la toog barki démb leneen am na ay preuve Ousmane Sonko yoo xam ne ay vidéo la xaw ma ay la kuy wax loolu mu ngi junju hmm. am na non si am na benn euh, TikTok benn waayu TikTok bu mu doon xulool fan yee passé parce que waa Pastef yi dañ koo considéré wul comme nit xamal lañ ko considéré xaju mbefelaan buy taxawaalu ca mbedd ma apportil dara kon kon na réglé mais mais que tamit euh, wax sa xalaat tamit tamit jar na yéen nii tamit parce que moom. li ñu def euh, moom ndeyam ak dañ koo fal maire wala lan ndeyam ak baayam sax faluñu leen jaaj jaajuuti waa léegi Pape ñaa nekk directeur RTS yàlla def ko ko ndax moo ko liggéey ba tax ñu jox ko ko. waa léegi su bëggee jaay image RTS du xool artiste bi fi teg tànk mu woo ko jox ko def ko ambassadeur. Mhm. son excellence président jàmmi réew mi Waly war a def ay tournée internationale waaye léegi tournée internationale yooyu bu drapeau RTS demee gars yi duñ bàyyi xelu RTS. Mhm. duñ fàttalikuwaat RTS RTS dee woon na di. RTS lu jum woon dee woon na bu yàgg Pape ale Niang mooy ñëwaat nii ba tax sax ñuy wax ci RTS. Mhm. son bi way Waly way nii ba tax ñoom ñu koy critiquer loolu dafa am solo parce que ñu ngi dundalaat RTS tey actualité yëpp lan la du RTS. Mhm. loolu lañ ci soxla Pape Alé Niang dégluwu leen du leen déglu yaakaaru leen te bàyyiwu leen sax xel te far force waale mooy ambassadeur RTS muy leen di neex ñoom di neex seen ndey di leen neex seen baay di naqari seen baay moom mooy ambassadeur RTS te duñ ci mën dara. Hmm? duñ ci mën nix yooyu ñu di wax. Hmm. duñ ci man Papa Ndiaye Coppet loolu far force la doon nañ ko ba pare. biñ ko defee waale xalaatoo woon leen polémique bi. non ñu ciy xalaat ñoom dañoo ëppale waale ci dëkk bi li waale di def ci réew mi sax seen baay dakoo def ñoom li waale di def ci réew mi seen ndey ji leen jur ñàkk gu seen ndey ñàkk liggéey sax moo waral ñu toog fii di fen mais bu seen ndey liggéeyoon dëgg dinañ tal leneen lu du toog fii di fen xoolal nañ dem liggéeyi ñu te bàyyi nekk Kaolack kooku di fen dajale waa Kaolack léegi ñëpp comprendre nañ leen. waa Kaolack ñëpp xam nañ leen léegi. Hmm. moo tax kenn nawlootu leen kooku kan moo ko nawloo Ousmane Sonko sax nawlootu ko di parce que Ousmane Sonko dafa def ba xam ne kii dof la wérut gis nga xeexal nit ba tax nga dugg kaso. Hmm. taxul lu la neex ngay wax lu la neex ngay def ci jëmmam ji déedéet fii ñi dugg kaso ndax Ousmane Sonko bari na. Hmm. ñaata personne la centaine de personnes a dugg kaso ndax Ousmane Sonko. xoola bu mu ñu fontoo moomu réew mi te et puis ñoom sax damaa dégg ci benn for naa ci wew bay ñu ni ñoom bokkutuñ Pastef ñoom ñoom ñoom ba jënd carte membre jotee jënduñu électeur sax nañ génne seen électeur suy defaat live na génne ah. électeur am ak génn carte de membre am biir biir Pastef Pastef dëgg dëgg dëgg dëgg. ñi nga hmm. xam ne ñoo ëmb Pastef. Hmm. caaxaanuñ doxuñ ci ay caaxaan doxuñ sax ci ay détails. tey koo ci fëgg këram ne ko sa carte membre Pastef laa soxla mu wan la ko. nañ génne seen membre Pastef. bii ki ko moom. Hmm. pourtant dafa xeexal Pastef ba sonn. ce que mos ngaa génn wane na ko mosul génn wane te pourtant ñi ci xeex la bokk. ñu leen daakoon a xeexal Ousmane Sonko ñoo fi nekk te wane wuñu woon fi ñu toog lañ toog di xeexal Ousmane Sonko ba yàlla jox ko li ñu li ñu bëggoon. Mm-hmm. te ñoom bu leen Ousmane Sonko yaakaaroon Diomaye du toog de. ah mun naa mu toog fi mu toog di xun naan sax bu ma gisee président kat ma ne ko dina gis président président dina recevoir ay mbaam àll ay xaju mbefelaan président dañu ko fete pour ay xaju mbefelaan mu leen recevoir c'est quoi votre problème. Hmm? moomuñu réew mi est-ce que waxam ji tamit mënta ta tax sax Pape Alé tamit changer ambassadeur bi tamit dindi ko. Eh, ñoom Pape Alé lijjantiwu leen di yéen journaliste yi xam ngeen Pape Alé Pape Alé du tontu détails yii di Pape Alé ay président la du tontu seeni i détails waxuma laa ay hypocrite ay mbaam àll ay xaj ndeferaan <laughs> mhm. man la délégué Amar lax nga dëkk man Diourbel laa dëkk loo baax ma ñeer ko awma problème boobu sama numéro sax boo bëggee boo wootee gars yi jox la ko fiit yaa ngi génn di wax ci waale may génn di di la fen loo bàyyil fen bàyyil fen te bàyyi wayaan gu metti gi nga nekkee sëriñ boobu nga nax fi ba mu dàq la nga bëgg a ñëw ci Sonko yow Sonko gaay yi mosuñoo laaj cotisation ba nga joxe fa nix loo joxe na ngeen wax ko mosu joxe ci Sonko loolu yorub drapeau di fen rek war na génn wax lu mu joxe lan la joxe ci Ousmane Sonko hmm? bi ñu waree cotiser Ousmane Sonko oto lan moom lan la joxe laaj leen ko ko dërëm bi ñu waree joxeel Ousmane Sonko pour élection nangam laaj ko lan la joxe dërëm joxewu ko kon ñoom bu leen Ousmane Sonko yaakaaroon ñoom fenkat yooyu nekk ci seen TikTok boobu ñu dugg ci laay boobu ñëpp bu leen Ousmane Sonko yaakaaroon jomaay du toog am mhm. dem wuti lu ñu def. dégg naa nag benn jour mu toog naan waaw Ousmane Sonko laay xaar mu wutal ma liggéey ah moom loolu la toppee woon Sonko Ousmane Sonko jël réew mi. nekk premier ministre mu wut jox ko mu liggéey Ousmane Sonko bala ko wutal liggéey am na ñu ko ëpp njëriñ fopp ci réew mi ñooñu la ñu wutal liggéey tamit et puis sax ñun voté luñ parti nuñ koy waxatee Pastef pour état bi réew mi ñu jël lépp jox ko waa Pastef loolu taxuñu teg leen fi dañ leen fee teg ngir liggéey Sénégal dañ leen fee teg ngir projet bi ñuy proposé donc teguñu leen fi pour lan ñuy jël ay waa Pastef kese di leen jox réew mi. kon projet bi wàll ci la bokk. projet bi képp kuy def lu baax képp koo xamante ne nii que avancement Sénégal mooy sa njariñ yaa ngi ci projet bi. Mhm. te Wally artiste la. président Diomaye da koy soxla far fos. Sonko da koy soxla far fos. te way wi us euh, euh, way wi Wally way Sonko Diomaye. Hmm. muy neex seet ndey yi leen jur ñoom. di neex seen baay yi leen jur ñoom waale da koy way muy neex Ousmane Sonko mu dugg ci xolu Ousmane Sonko di dugg ci xolu Jomaay te ñoom seen ndey yi du ci man daal parfois day am. <laughs> jërëjëf délégué voilà buñ nag sama yaram bu tàngee bëgg balaa naa leen wax leen lu ñaaw taxawee na le. déet waaye ñii dañ ñoo bëgg a fonto waay lii tax na sax ma bañ suraaw. lii tax na sax du ma lekkati suraaw. lan loo lekkati lan. suraaw luy suraaw. benn lekk la xamoo ko. déedéet xaw ko de. suraaw. xam nga suraaw. ah yow daara nga xam nga luy suraaw waaye <laughs> nii dañoo naan feex waaye luñ jug rek yéen eh. heure bu état bi defee dara. Eh. wala heure bu kenn defee dara rek ñu génn naan ñoo xeex projet bi. ban xeex xam nga lan mooy xeex bi ñu jàppee Ousmane Sonko di ko néewal doole la Barthélémy Dias defoon non Guy Marius Sagna. waaw la Guy Marius Sagna defoon loolu mooy xeex. xam nga lan mooy xeex. bi jàmmaarloo ak gendarmerie ak policiers yi jotee bàyyi Fall ba taxawoon yor xeer wa di sànni ay policiers loolu mooy xeex waaye di fen taxaw ci ginnaaw oto yorub drapeau loolu du xeex ah, bu leen ñu fontoo <laughs> non dañuy waxtaan loolu du xeex xam loolu mooy xeex ñi nga xam ne bi génn jotee ñoom ñoo takk seen ndigg jël ay xeer def ko ci seeni poste di jàkkaaroo gendarmerie ñu leen koy xaañ ñu koy jël xam nga lan mooy xeex université. la étudiants yi def ba tax ñu may leen jàmm loolu mooy xeex mais du du yor drapeau taxaw ci ginnaaw ni di fen yow mënoo daw say tànk baaxut. sàcc nga bañ jàpp lu dóor la ay yat ba sa tànk yee paralysé loolu du xeex ah. bu leen ñu fontoo. loolu du xeex. voilà ci kàddu yi nga xamante ne seqoon nañu ko ak suñu frère euh, délégué Amar lépp rek di waxtaan ci actualité bi nga xamante ne. waay ak tey ñu bëri ñu ngi. kay waxtaan dañuy di gëmnoo Ousmane Sonko naan Ousmane Sonko bu ko Ousmane Sonko woon léegi ne ko kaay sama buntu kër nga tuur fa dugub bu ko fa def du ko def. parce que gëmuñu Sonko seen intérêt personnel moo leen fa bàyyi. jërëjëf Sonko leen ko may. macha allah xam naa ne actualité bi rek laa bëggoon ñu taxaw ci. te gars yi damaa ma wax la benn affaire. Hmm. sénégalais dañoo umpule benn affaire xanaa xamoo état bi fi jógee mos nañ jé mos nañ të tëj compte waale. Hmm? waaw. Hmm. bala maa dee rek ñu naan waale état bi fi jógee la ànd la wala nangam état boobu li ko wa ni maanaam ni ñu teg woon waali bët. kenn mësu koo tegee Wally bët. parce que dañoo gisoon Wally ni mu duggante woon. ma ngi noonu nag dem ba jaxasoo. non non non ñoom ñëpp ñu ne ci. Wally Wally impôt fii Sénégal ne na impôt génn ne Wally ndax ndax Wally mos na leen ameel dërëm dañ génn musul ameel impôt nix dërëm ameelu leen ko état bi fi jógee dem nañ ba tëj compte Wally te li ñu li ñu war a wax nag bëri na de. buñ dof dof loo nag ba ma wax fi ay bomb fii dinañ dina leen coûter cher. Hmm? kon nañ réglé nañ réglé ah. waaw mooy jomaay jomaay mooy Sonko te ñu ngi liggéey li ñuy liggéey ñun refalu nañ ko teg nañ ci suñu bët. kon Pape mooy waale waale mooy Pape Alé. mooy waale waale mooy Pape Alé. waale ah, mooy ambassadeur RTS. Uh-huh. RTS di ambassadeur waale. waaw muy neex muy naqari. ku mu naqari nag nga maat sa bakkan. boo uh-huh. jotee sa bu waajuru jigéen sax nga def ko. am naa mbégte ci am ak yow jotaan xam naa bu ma daggul waxtaan bi léegi tey <laughs> bu ñu paree léegi ay problème dina fi am. ku mu naqari. Hmm. nga màtt sa bakkan boo jotee sa waajur bu jigéen sax nga màttal ko. yan kàddu ngay tàggatoo délégué. sant ginnaaw kenn du laal ah. waali kenn du ko wax dara. non parce que ay naar fekk lanu président Diomaye dina recevoir waali lii ngeen koy seen yaa ngi dégg ñoom seen ndey seen baay maire maire yi ba ñu dëkk sax du ko recevoir. waa doo tàggatoo. pour te dire parce que moom mooy artiste bi nga xam ne moo teg tànk ci réew mi yàllaa ko def munoo di def dara ci réew mi te doo ko ci boole. waa léegi ma laaj la mm-hmm. keroog ba nga xamante ne nii que président Macky Sall mu ngi inauguré stade ba. Mm-hmm. tax ñu boole ko ay son waali te pourtant ñooñu ci état bi lañ ne. parce que la waali way arrangé président bi fi toog. ndax waali way wow doo ko way ci dëgg. ba muy woy fii naan président Macky Sall ndongo daara yaa ngi jooy waa léegi boobu ñoom ñoom ñoom lan lan lañ ci wax pourtant dañ ñoom ñoo doon dugal way wow di ñoom. Hmm. ay naar feq lan mënuñoo yokk Sénégal mënuñoo wàññi Sénégal. jërëjëf seen kër dëkkuwaay bu baax sox mënuñu ko am. merci beaucoup waaw léegi waa léegi waa waale mooy ambassadeur fan RTS. ak Sénégal Buzz. at Sénégal bës <laughs> at site internet yi ci dëkk bi waa léegi ma wax la benn secret. Ah, ah. barki démb de pourtant son excellence premier ministre dafa recevoir jour boobu di Sadio maane ne ko yaay ambassadeur Sénégal online <laughs> bi xeex jotee est-ce que Sadio Mané xeex na. Hmm. Ah, dañ bi xeex jotee waa lii xeexul dama ne ndax bi xeex jotee est-ce que Sadio Mané xeex na te moom lañ def ambassadeur Sénégal online. dox kaa suñu boobu en waale lañ teg ba hmm. ku fi génn wax ko dara ma ginjax ma ginjax ñam ñambax la ko. jërëjëf maam si kàddu yi xam naa bu ma ko daggul moom it du taxaw. waaye et dañoo war a dem TFM. Hmm. waaw bu ñu jugee TFM ñun ñooy ambassadeur TFM. Hmm? yëgul leen loolu maa ngi sàcc wax ko en même temps tey tey jii TFM te dañoo ambassadeur TFM. eh waay. loolu <laughs> faj ji tamit nekk ambassadeur télé yi ci Sénégal yëpp ñooy seen ambassadeur te dañ koy doon farfoos. waaw. suñuy woy di fa dem di ah. dem ci télé bi ñun ñuy toog ci si internet di wax ay journalistes di ñu poser ay questions ñuy tontu. foo seetaan waale nii. ma ngi nii Sénégal Buzz. foo koy seetaan. fii fan la. fooy seetaan waale nii laa la wax. ah fii. Sénégal Buzz waaw moom laa wax RTS la woon. bi mooy bu RTS bi non. waaw. Sénégal Buzz 221 waale mooy seen ambassadeur ñoom ñëpp site internet yi Sénégal yëpp waaye la seen ambassadeur. loolu la yàlla dogal. waaw loolu moom am na ba pare. ak waykat yi ci réew mi yëpp. mooy seen ambassadeur. <laughs> kontaan naa ko mu def live wax waxu nit dëggu lu dëggu la teg ci taabal ji. Mhm. loolu mooy nit. réew mi RTS Pastef moomu ko. Mhm. RTS Pastef moomu ko ah. RTS Sénégal la ko moom président mooy directeur RTS bi mag mooy xool ko ko neex mu teg ko fa ko ko neexul du la fa teg teg na fa Pape Alé Niang Pape Alé Niang bëgg naa jaay RTS du woo kii nga xam ne moo gaaw ci bayra waaw ah ma jeex na. jërëjëf maam si jotaay ak kaddu yu am solo yi ñu seqoon ak suñu frère euh, délégué Amar à travers Sénégal Buzz 221 di kontaan bu baax a baax a baax ci jotaay bi di leen jot ak daje bi leen numéro jërë ngeen jëf.